naturellement am na yu fi xew xew yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy mettitlu di ko di ko di ko di ko naqarlu di jaale d'abord ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu ñàkk ci seen bakkan ndax Sénégal moom kenn ëpp fi euh, ñun ñëpp la ñu soxla pour defar réew mi kon kenn ku wàññeeku ci ñun rek surtout wàññeeku ci yenn anam yi doon xale mënuñu lu dul mettitlu ko di leen um, andil njaalu président de la République njaalu gouvernement bi yëpp njaalu Sénégal yëpp parce que Sénégal dañ ko bokk heureusement am nañu nag état bu taxaw état bu dëgër boo xam ni lépp luy yoon dinañ ko def di ko maintenir mu tombeek nag aussi jamono joo xam ne président dafa woote dialogue je pense que ku am lu la neex wala mu am lu la naqari wala mu am loo bëgg def ci réew mi def naa ne foofu la ñu ko war a defee et kooku aussi président ngi ko nii di tàllal loxoom képp ku bëgg a dialogué mais ci biir nag ñu topp charte yi nga xam ni moom mooy tënk